قالوا سفيه لسرفي عنهم بشري ورغبتي عن سوي العصيان في البشر قالوا سفيه لتفويدي إلى ملكي أمري عن الكون في سف وفي كدري قالوا سفيه لحبي خالقي ملكي ولم أكن للبرايا أستكي ضرري قالوا سفيء لكوني لم أقف أحدا وما رجوت سوى الرحمن ذي القدر قالوا سفيه لخفي نهجم الجيناس الشيخ سيدي فخل الخير في الخبر فقلت خلوا سبيلي mu ne mu ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne mooy buur bi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di yëkkati ay kaddu. di yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ Moustapha. ci turu Serigne Moustapha. mi nga xam ne mooy sa jëwriñ ca njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Gueye Mbind. muy kaddu yu ak kaddu cant. ak kaddu ngërëm. ak kaddu yeesal lépp ni mu ko baaxoo def at mu ne ca ñi jiitu woon ba mu agsi ci yéen moo tax Serigne Moustapha Matiley ànd ak njaboot gi yëpp la ca ëpp bokk ci mboolem bunti këri Cheikh Mouhamadou Lamine Baara nee na ñoom ñëpp a ngi ànd ak moom nii manes na cee jiital sëñ Baara moom Serigne Abdoul Karim. ak Serigne Moudou Baara xalifa si Abdoul Ahad Serigne Abdoul Aziz Abo di xalifa Serigne Abo Madiana mu ngi nii Serigne Cheikh Thioro xalifa Serigne Amad mi ngi nii Serigne Moudou mi ngi nii Serigne Laminum sëñ Basiru Khoudia dafa am gànt waaye yabal na sëñ Abdoul ak sëriñ Abdul Xuddus sëriñ Xaadim di xalifab sëñ Moussa Baara mooy mi ngi nii sëriñ Baara Laxat ànd ak sëñ Muudu Baara ak mboolem njabootu Cheikh Sidi Mokhtar gi ñi ngi fi sëñ Muudu Aïcha ngi fi ak sëñ Jiili Matiley sëñ Abdou Samad sëriñ Xaadim Diop ñoom moom it fi teewal waa kër sëriñ Ñaan Diop. sëriñ Abdou Aziz Diop mooy xalifab Njóobeen Ngunta mi ngi nii waa kër sëñ Xaadim Awa Ba ñi ngi fi sëriñ Maar moom it mi ngi nii ànd ci njaboot gi sëriñ Abdou Lahad maanaam daal buntu kër sëriñ Mouhamadou Lamine Baara yi ci ëpp yëpp waa kër sëñ Aziz Baara waa kër sëñ Mourou Aïcha waa kër sëñ Xaadim Awa Ba ak ñi nga xam ne ña nga ne ca gannaaw fa laa ci tënk di mel ne na kenn di sufa di ñaan yàlla sunu boroom mu guddal saw fan may la ba nga yàgg jiite njaboot gi sëriñ Moustapha mi ngi lay séeréel ne njaboot gii nga xam ne ñoo ne ci gannaawam déggal nañ ko lool noppal nañ ko it ñu ko jox seen bopp lañu te di ko déglu saa su ne kon moom it mi ngi sàkku nga ñaanal njaboot googu yi nekk ga mu nekk ca bopp kër ga dafa mel ne booy xool kenn ku nekk ci ñoom ñoo ëpp sax yéene sëriñ bi noonu lañ nekkee moom lu mu bëgg dañuy bëgg lu ko ëppal lu ko kon mi ngi la koy seereel bu baax di sant njaboot gi fi sawet tàmbalee ci sëriñ Ousmane Mbacké ak mboolem diiwaan bi yëpp ñi ngi jotal. ñi ngi jëflante te lépp yi rafetal nañ ko loolu mi ngi la koy séeréel moom it di wax ne ca Angleterre moom Serigne Moustapha dafa am njaboot gu fa ne di njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha di njabootu Cheikh Mouhamadul Lamine Hollande ca Hollande it sëñ Sidi Ahmed dafaa demoon bëkk démb mu boole leen lëkkale leen nee ñaari kër yi benn lañu boole leen seen bopp nam nekk ci daaru Xudduus loolee ba mu koy defit ci turu sëñ Moustapha ak sa ndigal muy sàkku nag ñu soññi leen ca loolee bañ xam ne loolu lépp ci yow la bàyyi koo ñu xam ne it njaboot gi genn la taalibe yi benn la kon nee na mu ngi sant bu baax tey gërëm bu ñëwee ba fi sawet tey jii xam na ne amu fi kàddu ñëw ziyaar rek déglu la rek. nga jox ko ndigal rek mu jëfee ko loolu mooy wartee fi waaye moom fa mu nekkoon ak njaboot gi fa mu nekk ak njaboot gi fasu nañu toog fa di la déglu dégluwuñ keneen dégluwuñ leneen. Ahmadul Muxtaar sa njabootug bopp gën a nekkal fële ca guy mbind te sa jëwriñ ji di Cheikh Mouhamadul Moustapha nekkal la fa ci kanam mboolem lu sëñ Baara jaboote. may yëkkati sama kàddu ci aw turam eh, ñaari kàddu yeeg ñetti kàddu yi sëñ bi su sañoon ñii mu àndal ñëpp ku ci nekk dana yëkkati kàddu wan la li nekk ci xolam fiñ la teg ak fiñ ko teg moom mi su kenn ku ne mënoon a jël kàddu dana ko def jublu gi du lenn lu may wan la li nga xamante ni moom la àndaale ak moo nekk ci xolub boppam ak xolub njaboot gi mu àndal yëpp li ci jiitu nee na mi ngi lay nuyu di jaarale ci yow nuyoo bi muy nuyoo ëttu Cheikh Mouhamadul Moustapha bépp bi nga xam ni yaa nekk ci kanam di la ndokkeel bu baax ci bu ko sañee ndax du def lenn lu àndut ak ndigal ndax la tafalu shay'an bi xayri isnin fal isnu shartun fi xabuli sha'ni tayit la yasbiquunahu bil xawl wa hum bi amrihi yaamaluun ñaar yooyu yëpp da koo tënk kon mi ngi lay sant di la gërëm ci turu mbooleem li Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jaboote ñëw na nag ànd ak njabootu kër gi yëpp sëriñ Cheikh Coro mi njëkk a jël kàddu tudd na ñi ci ëpp euh, waaye ñi fi teew ñëpp kenn koo xam ne ñu tudd saw tur moo la indi amu ci danoo am ndigal ci suñ kilifa ci gunge ko mu jëm si ci ab sangam ci wasilaam ña fa nekk te jage fa jóg ànd ak moom Euh, nuy rafet lu baax doxinu Cheikh Moustapha ci bis bi sëñ bi nee na mi ngi ànd ak yow liggéey bi ni Cheikh Mouhamadul lamin Baara ànde woon ak Cheikh Mouhamadul Moustapha noona moo doon nal jël léppam jox ko dale ci moom yam ci moom di ko déglu tañ bokk lépp waaye xam na ni mbirum sëñ Touba moom kilifteef rek mooy li ci am solo waxtu wu nekk day dox ci kilifteef yeneen nattuwaay yi ñuy natte yépp leneen la jàpp waaye jàppul kër sëñ Touba tawféex ji sunu borom defal Cheikh Mouhamadul Moustapha Touba ak Husnu Maab ci alxuraan rek la am. alladina amano wa amilu salihati Touba lahum wa Husnu Maab ñoo taqaloo ci wàllu dëkkuwaay sëñ Modou Moustapha ak sëñ Bamba rek ko am Touba ngi nii Tindodoo ngi nii di Husnu Maab ñoo taqaloo boo ko doon wër feneen doo ko gis. kon kooku yàlla nan ko yàlla fayal sëriñ bi mi ngi lay sant bu baax di la ndokkeel ci bis bi Cheikh Mouhamadul Moustapha ci yan bu diis ba bis bii nga xamante ni rangoo ñu xol yëpp a ngi tuuru dikkug sëñ bi Touba ñii di ko tuur ci xol ñii di ko tuur ci bët Cheikh Mouhamadul Moustapha moo feral rango ñi nit ñu mat ñoo ñee doon jooy jooy xol ñi doon jooy jooy zahirat moo fomp seeni rangoñ fomp gi nag du jël musuwaar di ko fomp dafa mel noo xamante ne ku ko gis amuk dal ca dal ca mat ga ulaayikal xawmu laa yashqa jali suxumu is yàkk si buunal muridina saadaate dafa amoon comportement boo xam ni li mbir mi rëy rëy bu ñàkk doon am ñu nu Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ñàkk bu doon bu doon yan bi itam diisaayu yan bi moom moo ko war a yëg ndax ci boppam la ko sëñ teg kon bu jaaxle doon am moo war a gën a jaaxle waaye moo gën a dal ñëpp defal ñëpp ba ku ko gis loo mën a na am ak loo mën a na yëg di nga dellu suwaat ci sago ngir jëmmam ji. dafa am kenn ci magi taalibe yi ku koy xool ginnaaw bi ba si yàgg mu ni ko Cheikh Mouhamadul Moustapha de man dama laa yërëm ci yan bi ndax yan bi diis na lool. dama bëggoon nga wax ma gan wet laa la mën a féete jàppale la ko ci liggéey bi sëñ Mouhamadul Moustapha ni ko maa ngi lay dénk nga defaral ma sa bopp boo ma defaralee sa bopp rek jàppale nga ma loola nag nanu dimbalee sëriñ bee sunu kilifa yëpp defar sunu bopp defaral ko sunu kilifa yi ndax nu woyof ci seeni loxo sëriñ bi yàlla na nga ko yàgg jiite yàlla nang ci tasee ngërëmal sëriñ bi noo ngi lay ñaan nga ñaanal yoonu murit wépp ndax bis bi sa bés la noo ngi lay ñaan nga ñaanal ummatu sayyiduna muhammad bépp ci bés bi loo ci ñaan sun borom dana ko def noo ngi jéglu cheikh mouhamadul moustapha ngi mi ngi gën a feddali ak nekkam ci sa ginnaaw ak mboolem njabootu cheikh mouhamadou lamine baara gi nu nit noo ngi lay seereel ni kilifa gu mat kilifa la kilifa gunu doyloo la kilifa gunu yërëm la gunu nu la loolu nag sama waxi bopp la so suñ diggante ak moom waaye wax naa ko ci turu njabootu mboolem ñim njaboote ci kër cheikh mouhamadou lamine baara ñaanal nu ko bu baax mu yàgg fi te ñaanal nu nu topp ci ginnaawam tey jëfe ndigalam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Moustapha Mbacke Ndiaté di magum kër gi nee na ngir ma wax ay kàddu dey du yomb. ndax yi jaar. ndax yi fi jaar. te sell. te mel na mu war a mel. te dara mënu caa tege. waaye nag. waaye bi moo wax bi moo wax ne. naa ci sànni ay kaddu. naa ci sànni ay kàddu kaddu yi nag. kàddu yi nag. weesuwul. weesuwul. soññe. soññee. ak fàttali. ak fàttali. ak fàttali. ak it. ngeen xam ne. ngeen xam ne. jataay bi jataay bi li muy rëy rëy. li muy rëy rëy. ki ko tax a rëy. ki ko tax a rëy. mooy soxna Aminata almardiya ngir pas-pasam ak yéeneem ak yéeneem ci sëriñ bi ci sëriñ bi moo leen may lii ngeen am nee na moo leen may lii ngeen am ndax ndax kat fa mu nekkoon fa mu nekkoon jiitu fa jiitu fa ne fa ndaw nekk fa ndaw sëriñ bi dem fa sëriñ bi dem fa wax ne bëgg koo laabal ay wax ne dafa bëgg ku ko fóotal ay yéreem. kam nekkal. kamu nekkal. ne ko kii ma yor de ndaw la. ne ko kii ma yor de ndaw la. waaye laab na. waaye laab na. laabug mën laa liggéeyal. laabug mën laa liggéeyal. ñu jox ko yére ya. ñu jox ko yére ya. mu dugg ca néegam. mu dugg ca néegam. jàpp jàpp. xooj yére ya. xooj yére ya. naan xooj. naan xoojiit ma. moo maye li fi am. loolee moo maye lii fi am ci ga daaru Xuddoos ak Guy Mbind te seriñ bi ci boppam. te seriñ bi ci boppam. Cheikh Moustapha. Cheikh Moustapha al Karim. ànd naag taalibe yi. ànd naag taalibe yi. liggéey fii ci Tindodi. ñuy liggéey fii ci Tindodi. ba liggéey bi àgg. ba liggéey bi yegg. mu yóbbu ko njaareem. mu yóbbu ko njaareem. ne ko dugub jàng fa. ne ko baax ku tedd ka dugub jàng fa. lii mooy njëgu gerte gi. lii mooy njëgu gerte ga. sëriñ bi ne ko. sëriñ bi ne ko. def ko ñetti xaaj. def ko ñetti xaaj. bii na jëm ci yow mi leen di taxawu. bii na jëm ci yow mi leen di taxawu. bii na jëm ci ñi ngay taxaw. bii na jëm ci ñi ngay taxawu. bii na ñëw ma def ko ci li may def. bii na ñëw ma def ko ci li may def. daal ne ko Mouhamadou. daal ne ko Mouhamadou Moustapha. mu ne ko Mbacke. mu ne ko Mbacke. mu ne ko jëlee nga ci man juróom-yaari yëf. mu ne ko jëlee nga ci man juróom-yaari yëf. yent yi. yent yi. soxna Aminata Lo sa ndey. soxna Aminata Lo sa ndey. moo la ko faggul. yett yi. yett yi. yaa ko wutal sa bopp. kon mu li xew. kenn ko xewal. kenn rek la. te mooy kenn ki. te mooy kenn ki. te ab néeg. te ab néeg. ca la ñuy jage. ca la ñuy jage. ca la la ca des di xewee. ca la safaan bay di amee. li xew. nee na li xew. soxna Aminta. soxna Aminta loo rek. ànd bii ngeen ànd. ànd ànd bii ngeen ànd. benn xol. benn xol. bu seddee ni xolam bi bu seddee ne xolam bii seen ànd bii ci yéen ñii ah nee na amul. waaye may nee. waaye nee na moom it. mi ngi ñaan. mu ngi ñaan. ci daraja Cheikh Moustapha. ci daraja Cheikh Moustapha. ak Serigne Bara. ak Serigne Bara. bu leen dara dog. yàlla bu leen dara dog. amiin tubaarkalla allahumma salli jëf. mu ne jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mënoon ngeen toog ci seen kër. nee na mënoon ngeen toog ca seen kër. def ko fa defee ko fa. te bu ngeen ko defee. te bu ngeen ko defee. day mel ni yéen a ko defee ci biir day mel ni yéen a ngi ko defee ci biir ëtt bi. ndax benn ëtt la. waaw. ci lu wér mu ne kon jërëjëfati jërë ngeen jëfati asalaamaaleykum wa rahmatulah watruku xasali maali siwa taata rahmani min watari maali siwa llahi ismaal lahdu xayyabani wajaani malakaani dahri min wazari ما لي غدا أين عسرائيل يخبدني روحي نسير سوى مولاي في العسر